الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رحمه المهتدى وان نعمه المهتدى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وفي من الصبران رب العالمين وكيف في جزء سلمى الشعبان محمد صلى الله عليه واله وسلم ñoo ngi ñaan suñu borom di leen gëstoo suñu waay ñu ngi koy wér suñu waay yi moo xam ni mën naa dem ci lépp ci li ko boo xam ni borom bi naa jéem ak lépp ci seen ànd yi nga xam ne dana ko am ba tax mu yëri sa yoo aadama wala boobu lépp ci seen diine yi nga xam ni nit dana ko am ba tax mu yëri sa ay bu fekkee dañuy ay yëf ci moom yëfal ci dina ko jëriñ bu fekkee ku yëf am réew wala mbooloo boo xam ne ñu ngi mbiru ñu dara day bu jéggee yëfal ci boobu amal na ko jëriñ yëfal ci boo xam ni comme gën a mari ci ay teggin nag lay àndal ak yëf bu baax ni ci li ko fu mu mën a doon ci biir rëy borom bi subhanahu wa taala mooy dafa fal mooy ko dimbale ba mu fal gërëm loola suñu borom dana gis ci nangu loola waaye bu ko nangoo it waxtu bi la dana ko wax ànd ak loolu lépp yéen na déglu xisa yi nga xam ni xam yàlla mu rëy muy ji yéeral ci borom baat yii ñu koy waxee baat boo xam ni wax ji pare dana tox yéegi te ñoom war a yéegi te ñoom nga xam ne ay yeeeti ndoxoy laaj ci àddina wala ni yii la suba sa léegi moo yéegi buñ ko dégloo kat danañ sax ñu xam ni fekk ñu baax na ñoom nan la doon jëflante ci seeni kilifa diine ak seeni kilifa àddina waaye ñoom kilifa yi nag bu mu daal dégg ak yóbbante wala dégg ak bàyyi ko ci ñooña ak lu leen jëriñ ci am yan taxawaay la ñu am. imam al-Zubayr ibn Rabi'a mooy nekk nii amirul mu'minin di Haaruna Rasiid kat dafa am moo xam ni dafa añ xam ngeen avion bi taxaw na ci avion bu mag la woon boo xam ne dafa gis woon ci ak yëpp maanaam xam nga ñi nga am wala ñi nga amoo bu mu daan xool asamaan bi seen xaw ñi wuy leen day taw nga joxe asamaan bi ñu leen ci bu la neexee tawal ci dëkk bi bu la neexee demal dëkk bu la neex nga taw ma waaye boo man ci tawit bu mayee mu ñëw sama wàll ci liggéey bi loolu mooy wane ni ci nekk rek ci lislaam buy gën àll bi daje kon kooku mu la yaatu nee na ñu ñaan ak moom nee na mu daal di maan ak moom li ñu liggéey ma ne ko ah loolu yëpp mais mënul daal di ñëw dëkk di ma woo mën nga maa woo rek ñu ànd nee na li nga wax rek ah loolu dama ko war a demee ah nee na ñu yëg ca ak la mu daal di may wax ci ma man man mi jiite nit ñi ak li may nekk def ko ak li muy kaw ay noobay ak li kawe sa bopp damaa yëg aay woo ku ma aay woo ak conseil boo xam ne damay conseil boobu nit ndax mbokk yi xam ngeen ni kilifa léeg-léeg ñu koy waaj a wax ci xam sax maa ngi wàññi la koy waral mooy ñenn ñi ko ragal ñu ko wax ñenn ñi xamal leen seen wax ba mu gis ñu ko wax ñenn ñi xamal leen seen sax xam moo tax ñu xamal leen seen yàgg ñu ko wax bu ko defee kon dama aay ne ko kaay ñu doon ko wax ñu ànd bi ngeen dee fekk imaam yi wax yaa ngi ne wala yaa ngi imaam bi mag la woon ñu ne ñu dee ma ne ko ma ko ne ko awee lu ngeen xaaru naa ci wala yaa ngi ñu ne ko naa di kaaw yéen ma war a xam wala wala di yéen li mu génnee mooy ah waaw dafa ngeen yow mu yaa ngi ci bind ñi tey boo ko laa nekk laa woon moom nga fi ñëw sa xom mu ne ko dee maa ngi wax ci sa rajo dama bëgg baax waaye yooyu yëpp wax dëgg yàlla yëpp la ko déggee lu baax la ndax biir taw yëpp ko xam xam xam xam la xanaa ba ko déggee lan ko doon ko wax ba léegi yéegu ko mu ne ma yow baax waaye boo xam yow wax jàngale nga di jàngal nit ñi ñàkk yitte woon nga yitte woon di jàngale mën naa tax yitte liggéey bi bàyyi ma am waaye boo xam ko àngal mu daal di yëkkati ak góob bi def tuuti ni ko dimbali ko ay bañ ay bon ko di jàngale bu ko defee nag yàlla yu mbir ne xam nga ñoom dëgg yàlla lii ñu wax am na solo waaye daal lii la sama xol ba léegi dégg ko ko wax tegal na fee mu ne xam nga war wax ñu wax la daa ñu dégg ma kaay leen ci moom mais ki ngeen dégg moom mooy wér na mu daal di la ah xam nga lu ñu ñëw mosu laa ci kaay ñu woon ma mu ne ko léegi loolu moom solo kaay wax ñu sax ñu gën xanaa lu nga fàtte ci ma dama bàyyi ko wax ah moom mu fàtte ko dama bàyyi ko wax ba noppi xam naa lan yëgoon fee dañu gàtt mu ne ko yow moom baaxalaay ko ñu baax engrais bu yàlla naa ñu ci bopp bu ngeen ko ñu jël na ko ko maa ngi li ngeen ne wax ci àndal ko man la ba léegi daal li ma bëggoon ku ko xool ci sama xol ba léegi kenn xoolal ko mais bu ñu ngeen ñu ne ko wax comme kaay xam na keneen bu ñuy wax bu bëree yi dina yàqu xam ni imaam ci moom imaam la jot suñu xam ci kii daal ay wax ci kii daal suñu borom la wax te jamono mu ne mën a dem mais bu ñu yegsee li ñu fekk su may wut nag yàlla ñu taxaw di julli di jàng alquran di baaxu aaya dem toog mais daal di bëgg bunt bi li mu bëggee bunt bi nekk mu tërbal daal di mujj ni waaw ñu bëgg sama bunt ma ne ko amee la mi nii moo lay woo li ma nekk amee la mi moo lay woo man kooku lu may dee amee la mi suñu jamono yi mooy bari sama laaj ndax amee la mi moom ñu ñu ñoo gërëm koo ci kon sama idée tey jii mooy toppee ko taala ci benn rek soo ko xoolee ah man nu ma koy sàngalee mu ne ko yow xanaa laa ko ci li ko tey ba leen laa woo naan lu may lee xanaa yow laa jéegul ay jigéen mu ne ko ah ngay jéegul ay jigéen dafa ay may lee am naa tubaab laaj ko nee nañu naan su jigéen ñee ko bi jugee ku may fan na dina ko ci biir néeg wala donc ñu li ko tey ba leen laa seet si la joxe alaam loolu loolu daanaka kenn yéen sax yëgu ma Neden bayağı üzerinden yol uzun olacak böyle bu. Abdestin sürecinde tam ayrılda, Kur'an tutarken yalan bilgileri bu. Yüzü bu zikre Kur'an tutmayı okum ne? Yine namazını gibi. Bakın kılavı yani namaya namazını, Kur'an tutmayı nam gibi bir zaman var. Bakın bu zor bir şey değil mi? Zor bir şey zor. هذا الذي نراه من كتاب الله ومن الآيات ومن الأمم lii daal di ko xool xaaral di ko nit bu ko def di ko nit ñu téye ci ñoom ñaar bu ko def di ko ah loxo bi ma laal di nooy na de xam naa borom mi ngi ci moom waaye maa ngi dégg borom moom laa maa ngi koy maa ngi dégg borom lii mu góorgóorlu ba loxo bi nooy la koy bopp naka la mu jël ku mel ne su ma yeggee yàlla mu mel ne si moom. di boobee loolu bopp lu mu xam yaa ngi yéen a demal ci ma ni ah. di mën a jaar kese di waa ji baax ci li nga wax rek kenn ci ñoom moom lu bon kon de lii day doon aaw loo xam ni kii mu suul ji ndax dina bàyyi ko di wax ñu teg ci li nga wax ragal yàlla loolu ñii nit ñu la andi ko ci li nga xam ne dañoo ko gën a man daal may ak par exemple nga xam ne samay conseil duñ la wax leen damaa bëgg nga wax ma rek yow mu ne ko xam ne ñaar ci laa mu xool naa ci àddina waaye kenn xamul faroo dafa woo seen waa yi yow saa yi di ñëw si laa saa yi di ñëw si laa yi di ñëw rek xam nga ñëw rek ko xam nga lu ko la ak ko xam ne kaaba su borom bi borom xam ma ñaan yi di xay wala ko daal di borom xam bu mag la mu woo leen ni man kat yàlla daf ma nangoo ma ne du bëri dina kon nag damaa ko yéen ko amee man bu ni ko ah gaa yi ñu leen yàlla xale ñoom dañoo jàppee woon xaru bi nekk président ko jàppee woon nag nga xam ne ñoom bu ñu war a joxe waat am nañ koy joxe yow nag loolu jàppee dañ ko jàppee bu nguur waaw kon ñu dëkk ne bu ñu xaru woon ñoom dañuy jàppee xaru bi ak nag nga xam ne bu ko tey woon nag ñu jël nga xam ngeen mbokk yoo xam ne xam naa ne ba mu xaroo rek dafa jàkk ji ci seen bari comme nii mu ngi dee ngeen mbooloon àddina bi yëpp dëkk woon julli ñi ñu nekk ni man lan xaal waaye man li ñu faral di mujj xol dara léegi ñu naan sama xol bu xaar leen léegi dañu koy doon ci ma waaw. li ma koy doon jàng lépp lu ko doon ci benn kaas léegi boo ko léegi dañu leen ko léegi kaas ndax ñaar la yow la ak xol balaa ngeen. ñun ñëpp ñoo ngi leen faal ndax mbokk yi ci ngeen imaam bi jàpp wala imaam mbokk na ci gën a fort ci jiit yi te yeneen te yeneen ñett jiitu gi nii yoo xam ni bu ñu jullee sax seen julli yàlla du ko yéene seen kaw bopp du romb seen xalaat bokk nañu imaam yi jiite aw nit seen borom seen man boobu daal laa indi imaam la bu fekkee wax naa jiite ay nit ñi ne ko ñu la dafa war a jiite su fekkee loolu imaam yàgg la su fekkee ku jiite ay nit léegi xam nga daal ak ñett ñaar ñooñu ñaar ku ci nekk day ko ay léegi mu ne ko yow nag da ngaa ko jàppee ko di ak noonu waaye déedéet noonu ثاني من نام دلائه في هذا النجاة على الله سنيبا لكم دوانا يجعل ملكوكم ولكفصهم على الدنيا وعلى الآخرة فمن الله هو ملائه وهو الآخرة لما كان جنة يوم فهو لمن جنة يوم فكان معاكمة يوم فإن أمريكا أمريكا يحيي يوم الأخرى من الوقت الآخر ويحيي من الوقت الآخر ويمر هذا ويكون إصابة منها الموت وعلى الحال يدعو سوق كل متطلبات فقوله It's way there next to the ground of the heavenly Father. Jesus is a lover that is to Allah. Allah. Lord, we would have loved you. We would have believed it. I have never learned to come to your heart. وقال لك عبد الله بن ابي هذا المجال على الكتاب kabiru mu'minin la ka faa ay dana alam su dee li nga xam ne la ko dañuy yàlla lu mbugal yéen ku ma ma ci biir yi ñu lay jàppee ba xaar loolu la bàyyi ba ñu ci li ko doon ay yéen di mel ba du ko leen bàyyi ñaamu loolu ñu ko mën a bàyyi bu ko leen bàyyi ñaamu su ko ñu xam sa bàyyi bu ko bàyyi ñaamu su ko ñu nangu sa bàyyi bu la ñu ko bàyyi ñaamu kon boo ko jàppee comme sa bàyyi ñaamu yi ñooy mu ne ko soo jàngee ci ci biir loolu tolloog yow jàngee ko sa boo bokkal nawet aay xam ngeen am na yenn xeeti jëf yu am ay xabaar yoo xam ne nit ñi ko def mu bokkal nawet aay kon képp ku tolloog yow ay at ci ni nga dindi rek jàngee ko ko bokkal nawet aay mu ne ko wax ëmb indi na wala daal ci gën a suñ ci population bi jàngee ko sa lool ndax li ñuy def bu jàppee tout temps yi ci benn bi ay doomam yaakaar naa ne nit du nangu ay nit ci gën a àll ba yéen ñi ñu ngi ñu xamaate ay nit ñoo xam ay loolu jàppoo leen ba ay bakkan ci defoon lay jàpp yi nit li ñu def loo xam bu gaaw ci ko def rek doom jàpp rek comme bu gulum ay ay ay jàpp kon ñu ci doom ثم يأتي الحيوان في أرض مجال من أعراض الله البلد وأحب للمسلم ما تشهد الأرض léegi da ngaa bëgg ëllëg boo xam ne yàlla na bëggal ci sa baar yéen koo diine rek bëggal ko ci sa yaakaar naa ne bu bëgg li mu li mu bëggal boppam am na ngay indee yoo xam ne bu ko xoolee nga xam ne lii nii bëggal ko boppam soo bëggal wax sama bopp rek moom rek si nga xam ne nii ñoom laa gisee. xam nga ne bu dee ba nga leen bañal li nga bañal sa bopp lépp loo xam ne bu nga ko defoon du la neex bu ko defee bu ko defoon sa njaboot ba la soxla du la neex du leen mën a du ñeent ko def waaye sa alal comme bu xale bu kat néew ci yow kon alal jaamu nee na bi may ñetti yoon waxee mu ne ko man kat nii lool kat naa doon yow maa ngi dégg ñu ne maa ngi gis lool ci yow mu gën a méttee métti wala léegi yàlla su ko defee maa ngi dana tax lii xaw ma fekkee ndax la koy waral moom mooy dañ ci dénkaane yi nit la koy waral am bu jiitee ko tax bu fekkee yàlla su ko defee dafa gis dañ koy yëgal dañ koy yëgal mu ne ko nag yi nga wax yi ma lay wax wala diggante ak yàlla ndax am ngeen tey conseil kenn koo xam ne ñeme na laa joxe ci la conseil lu mel nii loolu moom su ma ne ko kenn ñi lay conseil am na ci koo xam ne lu xaw a jege lii ma lay wax ñu ngi la koy wax amul boobu xalal la suñ la wax daa yoo ñu xëm loolu la imam sahabi ne ci ko wax dafa koy lu xëm wax loo ndax bu ne fàlle ni am ak loolu gindoo waaye ku la wax yàlla dara yàlla ni boo ko takkee comme dafa ñooy ba daal di tëb mooy lu doon yaakaar ni ci naan président gars yi bi mun na la wax ba dëgg moom ñu ñooy ba tëb ba nekk donc lu koy waar lu koy lu doon yaa yaakaar lu koy lu doon yaa ne yow xanaa ne daa toog mais boo ci bëri nii xel ko yoone ñu ci ci li mu bëri nii lu muy noonu mu ne ko yegg mu ne ko yegg yaa ngi nga àndal da ngeen di tey waaye bu ñu tàmbal ko daan dégg ñoom ñaari rek mu bëgg ko am xëy na ji. li mu duggee ko li ñu njëkk a wax mooy ñi nga xam ne tool yi la dina doyal ko ci ma xookee daal ko mu tënk yow rek yaa la ko yow tool yi mu ne ko gis nga moom lañ xam daal yi am na benn waaye boo xam ne nii da koo xamal ni ko demal na ceeb dëgg sàng bu doon suñu jamono mën naa leen commune de la sàngam wala mais di sàngam wala des naa la nga def ci suñu kii dem noonu la nga def am lii yéen ok la waaye yéen yii amal doon benn lii mu tëdd mooy lii di leen sax ñu léegi loolu xam ne xamal naa ne léegi leen léegi ñu ko leeral di ko man de xam naa waaye xam ak mos du noor du nguur mooy lu bu baax xam naa ne baax na yiw waa xawaar kenn da leen tàmbali xabaar mooy leen naka du noonu danañ ko yàgg lool yàgg sax tan mooy lu moom nga leen loo xam ne ëllëg boo demee ca kanam yàlla bu ñu la tegee ci biir yàlla man ma ànd la da ngay àndal waaye ñu ubbee leeral bi ak point trois au dépense dëkk dëkk yi ba ci amee dëkk yi nii xale ñu ko yow kon li ñu xaaral laa ko yor mu ne ko xaaral yaa ngi leer ñu ko waaw mu ne ko tam leer ñu moo xam ci sama xol ak xam ci moom laa ko dund damaa dee doole moo tax moo tax a ñëw teetal keneen ku la koy joxal ko te it maa ngi lay ñaan ba keroog muy baax mu ko xaar su fekkoon ne am nañu ci ragale yàlla yi ci yoo xam ne ñoom bu ñu leen fàttali dëgg danañ ko jël waaye dañ ko xaar ne bañ joxe dina yëg lii nga jël jaaroon na su boobaa nga yëg dana ci jot loolu Arouna dañ ni ko Umayr laayaan ni ko eh yow Arouna di ki xool mu ne ko xool na sa kanam bi ñu ngi lay leeral yi ak kanamu président kanamu buur mu ne ko xamal ne yow mii kat yaa ngi ni nit yëpp nit yëpp ci réew mi san san lool sama yàlla rek mu ne ni àllaa ne yàlla na la laaj benn fàtte waaw mbokk yi ndax ñun ñu ngi seet nañu ni commune boo xam commune daal boo xam réew boo xam dëkk boo ci région boo feebar ñoom ñooñu ñëpp yow la ko laaj yàlla laaj ko ci léegi yow bu la yàlla laajee sa wàll loo mën a jëndee lan li nga woo ña nga war a ñu kaay yow may yow laajee ko nag ñu jëndee ñoom la nga ci jëndee ñoom yow la ko waxee waaye suñu borom moom la ngay jëndee yow yow la ko ndax ñu ngi fàttali ñu ko yaa ngi yow ak lii bu ko mën a doon saa rek yéen a réew ba wàcc ko tey jii ñoom gëm nañ ni bis la ñoom suba la taxawal na di ma laaj wala ñoom xaw bàyyi ko guddi mu jub ñu war aw yaram su ko du def man ma di doole ñoom tooy ci mu ànd ak ñu ko laajee looy tooy mu ne ko damaa ci àllaa ma dem yàlla ne ma la tax yoon bi maa ngi doon jaar defal ko ba maa ngi jaar bi sama kon yaakaar naa kii tàmm ne ma ko yoon wala sëriñ xam naa ne bu ma testal ci mën a xam ay baat yi dina ko wax te loolu la yàlla ko joxe kon ak yi ci moom bu mu toog moo tax yow de ay nit lañu woon yoo xam ne yéen seen naw la yéen nekk yeneen diine la lu mën na ci ñi rek ñoo mën a xam ma xay lu xam naa benn waaye dafa wax fekk mu dégg ci ci ci béy bi ma xel yàlla suuf ah teg ka naaw yi ak sënd lay yaram loolu yaakaar ne li gën a suñu bopp xam naa dina ci xam ngeen ku def lu waaye léegi lu dul li nga xam ne dafa dal di waaye li ma xool moom yàlla mooy ko yow dal di ko ko xakal sa baaxal sa yow da ngaa aase ba maam moo tax nga leen fii la daa dégg ma. xamal ni ak laa ñu toog ne ni julli ñu dugg ci dëkk bi yéebale yéebale ci leeral ñu ko ñun kat julli ñu dañu doon tooñ ndax ñoom am nañ ci wax la su dugg ci taamu dañu la woote islam bu bañ a ñëw ñoo xam ne dañoo mujj ba xool wax nañ leen ngeen di wax ci lekk ci la ñoo xam ne di wax ci sa may loolu ci mu xel xale la ba yéen waa ci xam ne naa la la ko ko làmbalee koñ koñ bi ngeen dëkk la kër bi ci ngeen dëkk la benn loxo muy sa wax rek am naa mënu ko ci ba dëkk la seen benn waaye muy la am muy lu mal mu tax la kenn ci buntu kër yi mu ne ko ci yéen ci bari naa aaraale mu ne ko bari naa ko ne moo gën a bàyyi mais dama la wax waaye li ma mën a am ñu ñëw ci bi tey rek doo ko ñëw ba pare ñu dugg ko am na yow da ngay laaj wala da ngay jóge yow pare nga nga laaj moom nga yaakaar ni mu liggéey ku doon ñu bëri naa dina sama laaj moom sama man mi maa ngi tudd rek naa ci léegi mu laaj ko ci moom loolu ko lay laaj li ko defee laaj moom ñu ko dañuy ñu ñu ko dañoo dugg ci jaam ko ne kii na ak ci yëpp ba nopp mu fi leen leer laaj nga ñett yi nga dem yaa ngi leer yi ngeen dégg ngeen dégg ko jaam ci ngeen yaa maa ngi leen bu yëkkatee yàlla bi dégg bu njëkk yi ndaw yi di dëgg ndax xam ngeen ni leeral lu jóge ci président nekk benn bi wax ñàkk bàyyi leen mooy ak ñu wax ñàkk bàyyi ci mën naa génne leer léegi li ma leen def maa ngi bëgg ma lu nga wax waaye ay ñaar lañu bi ma nee ma ko ci jiite ci naka la ko lii rek bu ne eh contact ci njëkk moom ngeen loolu ndax xëy na bu ñu gëm ne mbooloo mu bëri noonu benn bi bàyyi ko ci benn waay bi nga am xaram nga xam ne wax ne bu yegsee rek amul sax su ma ko wax wax dañu daal di jël dégg ni gën bu bëri ñi moom yàlla rek ko tax mu gën kon ñooñu moom lañ meroon ci ragal yàlla noonu lañ meroon ci jubóo ñeen ñeen ñeen ñeen ñeen ñeen ñeen ñu jiite maanaam ñu la génne wala dañ ñaata léegi ñu wut la gaana kenn daaw ñu taxaw ñu ko la présenté ma ci dund rek déedéet parce que da ngaa ñu dund yàlla moom koy wut la gaana loolu mooy ko comme sa kanam bi kat da nga moytu musal ko ci sawara ndax bala ngaa war a ñu diine yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na képp ku diine am mbooloo nga war seen diine allah xëy na boo dajee yàlla aajal la ko képp koo xam ne dafa diine ay nit nga war na nga jiital na nga jiitu allah xëy na boo dajee si borom la tax la aajal mu ne ko man na nga fekke loolu. alhamdulilah looy ba si kii bi tooy. bi mu liggéey nii waaw loolu est-ce que am nga ko mu ne ko waaw am naa ko kay waaye xool yàlla laa ko amee man amee ma nit ñi kon yàlla laa amee moom te jiitu naa ci sama bopp lool ba sama borom bi sa amee laaj ma laaj ma ko boobu ak alkali dana ma dal sama bopp ma àndee ca loo mu ne ko man bu mu wax yooyu nga wax ne loolu moom la diggante sa bopp bu may koy gis dañ koy boo boobu ma loolu li ma wax mooy ndax amee loolu nit ñi ko mu ne ko man lu may doyee amee nit ñi ay bopp man yàlla li ma digal leer na li ma gis leer na moo tax ma yàlla dara ma ñëw suñu man mënoo waa balaa mu si mooy la yaa loolu li ñu ma gisee ci ne lu ci daa maa koy lu mel ne li ci moom la mën a gis ay mooy soxla ma ñëw ba teg bu yaa soxla ma ñëw ñu leer na yàlla kat mooy ba teg laa son bi mooy war kàttan bu xaal loolu xaal na ci jënd ci ah suñuy ñaan suñuy ñaan ah suñu suñu jamono mooy def suñu ñëwal mooy bu njëkk bi liggéey naa def ko ci mbuus ndax dem xaalis xaalis mbuus bi noonu toog mu njëkk bi jox ko li mu ko joxee mu ne ma dimbali ko sa njaboot comme xawoon la nga dimbali ko sa njaboot su ma def ba ci ñu ko subhanallah yow ma lay tegtal yoon bi jëm xaalis da nga naan dañ may jox ay teg yow nga def man soxla wu yëg ko sant ñu ko mooy koo xam lu la président nga ne ñu woon yëg ci rek jox la ñu ko delloo déedéet mu ci ndax ak la ma boo ko xëyee ba mu jox la rek doo ko yow ndax ñu ngi ñu ngi waaye ñoom ñooy war nañ ko wax daal ba lu ñu ci ko moom daw leen ndax la loo xam ne loolu ngeen jàng xaw ma ñaar bu laal su ngeen di bay daal kër bu waaye bu ngeen amee pour ba ngeen toog di yàgg rek ngeen toog mu ngi leen soxla mooy loo xam ne ko lu nekk ba maa ngi ko xam ne daa kaa lu ngeen xam loolu nee naa xam na ngeen la lu bool jigéen ñi ñu ngeen jigéen ngeen jigéen daal jigéen ñi ñu xaal yi xaal yi ci bopp sëriñ bi yow dina ko def dina ko xaalis bi yow yaa ngi dégg ma day laaw ñu may bu ko déglu laaw yow da nga ko dégg ci dikkal jëm ko mu ne ko tuuba waaye du ma ko dégg yéen da ngeen maa bëgg a jàppee waaye loo xam ne yow amoon lu jiwee ci bopp loo xam ne yéen nga màggee ñu naan ko ne du ma nangu loolu jëlu ko loolu daal di baax ci am na ne bu déggee laaw naa jëm ba tey laaw ñu may may xaaral lu baax na xaaral ñu xam ne na ko nangu léegi nag ñu mën a ba mu jëlee islam rek dana la dugg ci loxo su koy faral mu waxal su koy faral mu nangu ko wax wax wax su koy teg teg alal dinañ ñëw sax ba ngay jàpp ñu daal di koy génne ni ko yaay affaire yi mu génne waaye li nga leen di di ba tey ba tey yaa ngi nekk di ko laaj laaj te ba mu gis dama ñu jaamuwaat xaral nga ne ci laa daal di génn kon kon lii tey bu fekkoon ne ñi nga xam ne ñoom la yàlla nangoo ñu kii ak nit ku mu mën a toll nag nit mu ko waxee wala xamal ci président nag mooy li gën a xare mooy loolu rek ñu ngi koy ko xamal wàcc ci ba kër tiire ci kër ñoom ñëpp ku nekk tiir la tiir lu nekk yàlla na ko laaj àllaa la la ñu ci seen kër su ngeen jiit ñoom ñeen ministre am nañ man ak mat bu doy ni ak ñoom bu doy ni fulla di leen ngeen ngeen gàngi na ci est ce que bu xaw a kenn bu ko am ndax di ko def lan lañ koy jël danañ ko jël déedéet ñaar lay lii mooy yoon bu fekkee dañu wut ay koom yi da ngay tànn ñoo xam ne soxlawuñ ay ñoo koy tànn soxlawuñ koom ay yi leen di jox leen ko dugalee déedéet ndax yaa ngi génne ci fii ci réew mi ay mois yu xam yu xam dem ci ay kaset loo xam ne ku lépp la ñu jéem ndax maakaar ñu ngi mel ay commencé ñu la jéem nguur bi jënd leen wala utal leen kër rek te nga commencé gis lan daal wax daal li ngeen aaw li ñuy wax ngeen aaw dañuy xaw a béy léegi nag mën na dindi ba xamee la. beneen bi ci des mooy maanaam tey su fekkoon ci diine nit ñi dafa am yërmande ci koy nit ci ci aw xeena nit bu am mbooloo ci ci aw la ñëw ñu dañ ko fi jëlee ñii loolu population bi ñooy jub ñi du fi jógee ndax dafa baax ci ñun wala population bi jub ndax ci ci ay ñu ni wëlbati ko ba pare nga xamante ne bu yàgg bu ñu jublee information yi léegi ñun ñun ñu ngi ci saa yi nga def waaye da ngay gën a am léegi ci biir kër yàlla ci ba alayhi salaatu salaam xale yi ñu dem lépp nag dara doon yàq daal ci lañ ko gis nga révolution yi yaa yéen amoon na li ko gën a gaaw amoon na loolu laaj lañ ko ci yàq bu ngeen ko laaj yi jaar révolution yi gën a gaaw yi amoon na moo tax am na yow boo ko gisee lu su mën a gaaw ci yow li tax ne dafa gaaw lu mën a gaaw la déedéet dafa am lu ñu gën a gaaw nga am ko yooyu yi ñu woon ci ay mbir yi nekk ci ñun lay gis. yeneen ci des mooy yu mel nii day gis bu yàlla teg ci kanamu xeet bi ah waa ji mooy ci bu am ndax kat bu fekkee ñun lan nga gàtt nga ji ñun lan nga koo xam ne ak noonu la yéen ne laata ngay bëgg la waaye suñ la bëggee yàlla ngay bëgg yéen yàlla ne képp bu jiite nga yombalal nit ñi nga jiite yàlla yombal la lay gis waaye bu jiite nga jafe nit ñi lañ jiite yàlla jafe lan tey su fekkoon ne ñu jiite am réew ay julit ñàkk ñàkk ñu maaja kër kër àll leen ba sa jële ba kenn ku ca nekk ak jàngaay bu maa ñëpp ci nit ñoo xam ne mel nañu mel ni dangay xaywa ak saa yi nga xam ne wax ak ak ñi nga xam ne moom la ci kaw tubaab yi nga am ñu mel ni ñoo xam ne ñoom kat dañ leen doon def ñoom seen pour nekk moo leen tuur ca par weer waaye ñu amul lu muy ragal xam ngeen ni mbokk yi lii tegu jéem te kenn ku nekk ci ñun di ko dégg maa ngi yaakaar ne ku amoon ay conseils yu yu mel nii ñu lay dégg dëgg di seen jéem bu am loolu nag moo xaaru ñàkka la ndax boo déglu sama kenn ci société bi rek ci ñaagal xaar xaar ko def lu ko yore ñu wax ko wax yéen ñi mu nekk xam nga mooy taxawaay ak la wax lan moo ci sa taxawaay ak la wax su ko defee nga bañ a ñaax sa ndigalal borom xam nga ni su fekkoon ni jàppale ni lii ku ci ku nekk sa pour lu ci di def la ne di wàcc ci xeex bi ci ñi ne liggéey mooy ak suñu wax taxaw ci li bëgg bëgg di nga ni ci laaw leneen ku ay bëgg bëgg moo ko gën a bëgg la yéen jiite rek su ko waxee dina mën ci dëgg yaakaar naa ni su fekkoon ni nit lu nekk dafa am ay conseil yu koy wax fekk am na yoo xam ne léegi nag bu nekkee yaakaar naa ne nga seetlu di nga seetlu ay mbir yoo xam ni danañ nekk danañ ne dëgg yi doon am ñu nit yàlla ñu ñaan yàlla subhanahu wa waaye nag am na loo xam ne ji dina doon dina liggéey comme xam ne ci wàllu nga xam ni lépp dañ ko ragal ndax jàpp nañ ci doole ci mu am ku mu tooñ nga muñ ku mu xaar nga muñ ku mu taal nga muñ ah mu fekkee ba rek léegi am ñu doon ñëw ne li gën mu tooñ ko mënu ko muñ mu soppanteeg moom lool mooy lii yëpp dañ naan te itam ci jëmbale yi moo daal di fii bu mu boolee fay kon xam nga révolution boobu dafa la bàyyi nii ndax nit ñi bu ñu ko bëggee moom su ko bëggee lépp lu mu doon yóbboo rek melokaan war ko defee war ba am na bala ñuy jaay lu baax boobu benn ñaar moom mooy ba léegi soo defaatee xëy ak xayat ak xayat yeeg sooy day génn moo tax dañ fi loi boo jigéen te dañ ko jënd ñu wane fi lu waral boo xam ni fayda li nga xam ne góor nag jigéen ñi mooy yàlla te jigéen ñi nga yoroon noonu te jamono yonent bi fi mu nekk nii dëpp koo wutal modernisation kon li ñuy def kay mooy ay góor ñaar jigéen benn yooyu gaa affaire yi jigéen ñi jiite loolu jamono yi yonent bi la woon waaye jigéen war naa mën a jiite ku juuyoo sa yonent bi juuyoo ku mel nii ñu ne waa kon kuy ma taxale kàcc kàcc moo di jullit boobu daal fan yii paas yi dañuy ay waa yeneen moom la ci góor ya yàgg ci benn noonu boobu moom yàlla lu tax la mu yàlla mooy xam ngeen ni ay kilifa yi dañuy gis su nekkee nii man damay wax ne bu fekkoon ne mu wóor la vraiment boobu dañu koy xel dafa koy wax ne nit ka wax ñii nag lu ëpp ñeent ba pare loolu la wax ñii nag parce que ñu lan ñoo ñeen ñoo ñeen gis ah te ñoo ñaar yi kat kat laa ñu ay kilifa yi ñu leen ngeen xam ko ñu xam ko ñu yëpp ndax ñu ay échange dëgg ndax su ma amee loo am ci loolu ndax loolu yàlla gën loolu ci ci ngeen bokk ak yeneen ak yeneen ak yeneen grâce boo xam ne yow ne xale bi kat bu amee suñu at ak yéen kañ naa leen mu ñaar li bu ko nee xam na li leen li mooy dox dox lu bëgg ko xalaat xam na ngay xam foo xam parce que moo la ëpp leen moom ndax daa fi weer ci li ñu doon ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne dafa waaw kooku yi ñun sax ay jullit ñu xaar xaar lu waay yoo xam ne dafay surtout ci alquran bi waaye di tànn ci dund ñu mën di seet teewoo lu waay yoo xamante ni ñoo ne rek ci wàllu xëy na kenn ku nekk ci nga naan li ci yàlla moo xam ndax nit ñi mën yéen gis na yéngal taal ay gën gaañ ay gàpp naa yi loolu bu dee ful na ci ñoom ne ko doon def boo leen wàññee ci ëpp ci lu ñu ay jullit ñooñu mbokk yi comme la nekkoon garab ñu wële assemblée waa yi ñu xam kenn koo xam ne yàlla wërsëgal na ko ji ak ji lu mën a doon gis dañ koy waxal nii ma déggee may dégg jaay bi noonu la ñu tàmm yore te xam ni comme ni ba ñàkkam ñu wax nguur lu ñaaw wala ñu ko saay wala léegi islam lay tere loolu nguur kat kenn du ko ci rajo bi wax sa xalaat ci ko wax lu wax xaaral naa yéen yéen parce que nguur ci la dëgg la boo ko mënee laajee laajee ko waaye kenn du ko wax lu wax ah, ndax xam ne yow da nga ko fi yàlla nit ki lu mu xaay xaay ba tax mu ne ko leen am nañ loo xam ne dëgg te ñooñu am nañ àq ci moom te ñooñu amal nañ loo xam lañ ci ñi fekk ñoom lépp ci ñoom yàlla ci la am kon bu bu mën a doon ngeen di leen bu julit bu diine yéen daal bu jiwu lislaam bu kenn ko xam kenn ko xalaw kenn ko wax ko da ngay am na kenn ko mën waaye dëkk ci moom bu ñu bàyyi leen xam yépp la ko jox bu jëlee sa jaar wàcc na bu jëlu sa jaar wàcc na leen ñaanal ne nag ak li gën a kontaanoo yàlla mooy fekk xam ne na ay ndey maa ngi daal mooy jàkkaarloo kilifa boo xam dafa jeex nga taxaw wax ko dëgg yow kenn sa yoon loo si boobu dara ko ñu ngi ñaan waa suñu xarala dem ak taw bi delloo si waa ci seen diine delloo si rafet léegi ñu ne ñu xam ne maanaam lépp loo xam ne gaal nañu kat suñu mbiri boppam wa maa la faa wax ñu mu yàlla maa ngi lay weer xaw ma dégg inna allah ay may yu ma la xaw ne sax ay may yu ma la dégg ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا واليك انويت المصير اللهم رد المسلمين الى دينهم ردا جميلا اللهم انا وزدنا وجعلنا قوما لمن اهتدى نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد واله وصحبه